Euh, sant yàlla bu baax de am contentement ak mbégte ci daje bi ñu daje soo gisee nag li waral jotaay bi mooy bërëm réew mi ci boppam muy Macky Sall Alaaji Macky Sall day toog ba mu yàgg mu def conseil des ministres dajale ministres yëpp waxtaan ak ñoom ci li doxal réew mi bu fa jógee ministre yi ministres yi kenn ku nekk lan la dénk nga dem doxal ko pour senegal dem ca kanam segam borom réew mi ma doxale non nak, waxuma la ak borom kër yi nak tay nag tey man ni naa dajale famille bi ndax yéen da ngeen a représenté ci man comme ay ministre ministre de l'éducation ministre de la culture premier ministre kër gi am daa am lu ci merci merci bébé alors kër gi am banen.

amatul ay ñaari fan ak ay ñetti fan man may xol fuma sentir rek fuma dem rek fofu la lool moy cadre bi moo cadre bi moo ci gëna difficile avant moo koy bind dañ na ci lu ne pour ma man ci am dara lo lo xamni dañ ko mëna tek parce que cadre bi mo ñu yobbu ci ngeen xamni légui léegi nekkatul ay 2 jours ak ay 3 jours ay 4 jours man en personne may xol fuma sentir rek ma nekk fa suma ma fa jigee orienté suma ma fa jigee orienté wat orienté wat non lay démé moy cadre motax point bu metti la

dama la defaloon 15 mais 15 plus 15 égale 30. 30 jours pour pour tôlier ah. yow may maa ngi mel ni ko dugg cinéma. yow moom duma wax say wax ndax balaa ngay lem lee bi mel ni ku seex nen bu taa ngay wax ma dem ba ma ko ñëwaat yow àggale loolu ngay wax. est-ce que foogoon yàlla fii rek lay am amul njaareem yàllaa ngi njaareem de.

kii yàlla indi na ko xajal leen ko ngeen yeni ko heureusement ba yéen yéen a ngi ci suuf moom mi ngi ci kaw kon jàmm mën naa am sant naa leen bu baax gërëm naa xam ni su wax ci lu ngeen ma ngeen defal ko lu bëgg ngeen may ko ko waaw ku ci am kàddu rek. mën man de su ma sañoon ni ma lay noonu wax rek laa lay wax. lii du dara gis nga lii du dara. yow jaar nga ci man jaar naa ci keneen jaar nga xam nga dafa neex mm. te dafa bëgg lu su ma doon yow dama naan tekk rek boo nee tekk tekk woon la yoon hmm. l'essentiel nag programme bi nga teg ci kër gi kilifa koñ yi ba mu daj yow rek yaa ko ci def hmm. li ngay def nag seet ci yàlla yàlla la tim ay seng kilifa la xam nga kilifa gu nekk ak ni mu doxalee këram te kii programme la boo xam dama koy photocopier léegi kenn ku ne ma jox la sa sa sa programme nga téye ko sa bopp jaru ko de yàlla gëmul nelawul may jaalo dalal non non déglu ma yowee eh, kii sa yaay moo nekk ci kër gi taxaw fi taxawaayu goro duma ko taay di ko wax de mom ngay xal yow je may jóge fi na la door yow ma fi jóge na la door sa kanam gi mel ngay ka res lañ ma sa jëkkeur man mayoo ma fan ma fan ma ñett fan m'a mom sama ay ñett fan dama koy jël bëgg lu leer la affaire yow da ngay man waxuma article 4 mo da ngay tekk da ngay ci article 4 mo nga may ma gis nga bëgg jigéen ak jigéen ak bëgg góor benn rek la ndax bëgg jigéen moo tax nga takk kii indi ko ci kër gi kii su ma toppee article quatre kii kii su ma toppee kàddu day génn kër gi ndax boo demee ci kàddu ci fayu kàddu lu leer la kat wax quand la chef de maison parle un femme riposte day génn kër gi da koy génn day dem parce que bu ma toppee article quatre ba ci fin ba mooy

te léegi léegi boo ne ma may naa 4 mois ma dindi 1 mois bi defal ko 4 mois mais ci yow la dépendre rek. xam nga nan laa la bëgg a xamal ma yeb ñaari yoon. gis nga yow li may ak yow boo ma fekkee su ma ko ak yow aw ma wax ak yow ndax yow da ngaa raakaar. gars seen yaram tàng na de mais est ce xam nga bu ma article article 4 la am problème ci kër gi. heureusement ba 6 bi. siis bi laaluma je bi bu ma ko laaloon dama len di

wala nga say kaka dem fu la mhm. parce que nak ne yi pas. ko yor deug la bo ñaké fayda ba ñak sa baat sa keur amoto fa dara man mom baat bi sama bakkan la ci teg deug la te ñoom ñep dañuy ranger wu ci règlement intérieur keur gi nek ci la neex mais légui xam nga benn ñebe ci cin yow xam nga ko dafa commencé commencé mel kuy exciter wu di jaxase keur gi di doré di waté di agressé nit ñi manam namu mu da nga xamoon ko dafa yokk mais wàññeekuwul. mais actuellement amul jàmm mi ngi bëgg reuy bopam boppam mayul xale bi jàmm mais mais lan la li lan la. mais wax nga ak mom mais xana da nga nan waxate nga ak mom mais parce que ki ci wax ak mom la dëkk yow wax ak mom yow. law dama lay laaj ndax yow wax ak mom ma Fall woo naa ko ba ci ruq duus waxtaan ak mom mais du dégg du gis. légui nag amna lo loo man mënumako hmm. mais yow yalla dimbali na yow man ko hmm. parce que man xamani ni samay wax ko fenn parce que kii ci des amul problème yo xam nga ko am xarum xarum yar la yoo xam nga ni may xarum yar la la mais Mati moy problème bi mais comme nak man denc lu ma dara rusuma d'accord na parce que man ma nga sama aljana man lijjanteetuma len de man nga li lijjanti sama bopp ma nga sama neex <laughs> mais mais daf may déranger légui nak yow je bëgg nga am fulla am mm-hmm. sa personnalité mm-hmm. wax ak moom yow dina la rusee dara man waaw ma dama wax ak may yow mati yow yaa a wax ak mati fii gis nga ku a wax ak mati mati déggal la ku dul yow c'est-à-dire yow la la mais ñun ñi man mii di aw ma man maa la may kii. mati dóor yi mati dóor na ma wax ko nga troisième femme lu ma deful amul. tey nag man bëgg naa la neex mais forcé ko rek waxtaan ak moom kor sa jabar la. troisième femme dina am comportement yoo xam ne am ci mais lii c'est différent ak loolu. lii moom nga ak pour mu pour kër gi ñu mais dóore yi dóore yi xam naa jikkoom baaxul yow gérer rek nga waxtaan. non non man fu ma ma la du ma la wax nga dem fu ma mënoon dem du la wax nga dem. te yow man dem nga gis. non man damaa bëgg rek nga dem. te xoolal yow maa ngi yow xamante nañ. waaw man dinaa la jox cent mille. Hmm. ma la jox cent mille ma xam naa ne yow xam naa ne dem bi day am lu mu àndal. waaw dafa nànk rek bu ma wax li may ba pare. cent mille laa lay jox mais ngir yàlla ak yonent bi. waxal ak moom bu jëree nga waar ko waar ko bu jëree nga jàng ay aaya jàngal ay aaya na affaire bi triste na jooy xam ne adduna bi dara yëpp day jeex biram su ma jàppee ondo yi waaw li nga bëgg day am léegi nag man maa ngi ak cent hmm. xamante nañ ma yow loolu dëgg la moom jaan kenn du ko jënd ci pax hmm. waaye olof nee na loxo bu yàggee ci kan hmm. jàmm ko ba yow da ngay dem rek loolu ba ñëw ma jox la say cent maa ngi moom dañ jox ma cinquante bàyyi fi. non amul lu ma lay jox da ngay dem ñëw ma jox la musuma laa wax luy dañ. yow tamit dem dikk du ko yàq foofa day nooy. na xoolal na diib rek wax man daal vraiment moom moom. moom xam naa ne ànd bi àndub intérêt dëgg la ndax koo xam ne mun laa defal dara te yàlla tax moom loo ko sant te joxoo ko du ko def man indi tu intérêt rek laay àndal. man doo ma yaakaar ba pare bëgg maa yëpp sa taxawaalu bu métti bi nga nekk nii di wër di rëbëx rëbëxi ah lu ne nga dugg ci loolu soof na ma te li ma gën a naqari mooy jaxeer ndiir ñi ngay àndal ba leen sa xarit yooyu baaxuñu bëgg naa nga bàyyi leen ah damaa bëgg nga changé ni nga mel ni baaxut boo xëyitee toogal seen kër gii lu la fi war nga def ko boo paree nga dem ca sa tooli bàyyee am na loo fa mën a def nga def ko boo paree nga toog seen kër li ngay doxalee neexuma soof na ma trop am naa ci yow lu ma naqari nag te bëgg naa mu dañ man doo ma yebaa ah. doo ma yeb wax ak nag jot na du ma la bàyyi ci li la neex ba nga sànku yemal. yow doy na su ma sànkoo ak su ma sànkuwul lan moo ciy sa yoon. man laa wax de man. samay xarit yu may àndal sa yoon nekku ci Saakura yow laay waxal sa yoon nekku ci Saakura yow fatt nga ma lëjal nga ma sonal nga ma toog nga ci sama kontooru xol bi ah bëgg a jël buum takk ko ci sama bakkan bii di ma ñor di ma di la topp du ma ko def est-ce que yaa yow yow man yow lan yow man ban yaakaar laa am ci yow ba nga naan bu dooma yaakaar ba pare yab ma ban yaakaar laa am ci yow noppil ba ma pare bu dee sa fukki dërëm yeeg sa ñaar fukk yi ngay versé ci kër gi la sam papa bu dikkee dinaa ko wax mu delloo la ko Mhm. changement baag may doog a leer yow jaxet ki yow ah? yow man ngay jàkkaarloo di rap rap ak li ma joxañ di parax parax yi nii. gisagoo dara eh, man du ma sama roman ah. dooma yab de ni ngay def nii yaa koy def waaye sa baay du ko def xam na maay kan man ñàkk ma fulla de boo gisee nii ma wàcc sama bopp ñëw daa am lu fi bëgg moo tax te li ma war maa ngi koy def sa baay lu ma yor maa ngi koy jox. Mati Fall looy ree sama dina diis ndax li nga def moo diis ci biram laa jóge wax na ma lépp loo def ci seen réunion bi ma lay wax ne def nga lu ñaaw te séentuwuma la man côté boobu kër gi soo fi daagoo tey man la may mi fi nekk maa ko dox kii nga xam ne mooy ñetteel bi tamit di lay laa man maa ko dox indi ko ci kër gi kon yow lan la lan moo fi ñor bañ koy macc yow biñ la mayee biram dangaa ñëw may uuf la lan moo tax nga ni doo uuf sa nawle bii yéen daal nañ leen di yaatal mais du ngeen yaatal kenn yow lan la lu ko fi jar. ah wax daa wax di bari. li nga njëkk wax mooy li nga def dafa ñaaw li nga defa ko gën a ñaaw. nan la ñaawee. sama jëkkër demul di kut nga dem takkale ko troisième femme indi ko ci kër gi. yow li ma lay dox xamoon nga ni ñaaw na nga ànd ci. moo tax day gën a ñaaw. xañ na looloo ma neexoon kon yow loo ci góobee rek na nga ko gar. Hmm. dangaa waane te fumiste te rambaaj. yow dimbali ma. lan nga jox sam papa. Ah. ay fukki dërëm ki ñaar fukk bu ma sonal saakura nga naan ma ay li ma war yow maa ngi koy def ndax daa am lu ma fi bëgg yow lan nga bëgg ci kër gi. Eh, man mii buñ la waxee ni la jaxeen dim dina sëy ak yow war nga koo gëm. yow mii man mii sëyuma maa yow. loolu force la loolu force la man fi mu doon say wax compté wu ma ko dégluwuma loo may waxak loo may bàyyi man wax ji maag sa baay la da nga sëy ak doo sëyi loolu sama fuu ndax xam naa ne fat force day am. ndax man du ma yaakaar li ma yaakaar ah def ko samam xel lépp lu ma war it maa ngi ci suba ba ngoon kon tey duñ dem ba fii nga bëgg a soppi jikko nan maay li mënoo maa découragé loo. déggoo li ma la wax yaak sama papala waaye man maay aj kiy dem te sëyu ma ak yow xanaa loolu jeex na. waxoo dëgg de Sakura yow sa comportement bi mën naa dugg ci yow. xanaa tey nga gis sama comportement mënoo maa découragé mën man mënumaa yaakaar li ma yaakaar boo ba léegi maa ngi denc sama bopp bu baax. ma naan reenu kàdd xasum xew ah lu ne ma ma boole ma boole jamu naan ngir lan renforcer wu du ma renforcer nag ba dis gann gann gann gann nga bëgg maa nga bëgg ma nga bëgg maa yoo wax yoo xam ne daf may jaxase du ma ko nangu yéene ji ma am ci yow day àgg bu soobee suñu borom yaa boo boo bañee ak boo nangoo loolu sama yónni wu ci en tout cas li may wax wax naa ko sa baay leneen li sama fou de quoi li ma war rek dinaa ko def mooy du ma la bàyyi li la neex ba ngay sànq boo sa sa saasa gi nag ak soppiku gi delloo ko fa mu ko dalee woon. sa yoon nekkul ci man sooy lijjanti nga lijjanti sa bopp wax naa la ko léegi nee naa la man maay aji kii dem te sëyu ma ak yow. mais jaxe réew da ngaa réew. waxal te sa loxoy bi. eh da ngaa réew de man duma sa morom de sa yi nekkuma ci de man sa kilifa laa danga may jox cër. yow fan nga doone sama kilifa. yow eh yow seen kër maa ko yor eh sa baay waxu la de. laajal sa baay nga laaj ko lu lu la saako rek jox mu wax la ba pare man man na maa woyof nii sama mu woyof ma ñàkk fay wala kaana waaye wa dëgg yàlla am na yoo xamante ni moom du ma dox de doo yeb de foofu nag laa yem ak yow fii rek ngeen di def di nga sëy de billaahi di sëy ni yow sa kër doxoo fa benn jabar Rata Kasabo, tá por exemplo. Baita troisième. El Hadj ma la noppil. sama yoon ngi ci fukk ak juróom que kon fii sa yoon nekku ci. yow dan eu yor. fii sa yoon nekku ci yoroo ma. yow yoroo ma yow. maa la boole ki la yor yoroo ma. boo yëgoon téye ko ndax sa boole bi boole bi saytaane la te man góor duma dox si en dox si woo ma danga naan maa la ñëw ñaan si li nga ma ñëw ñaan si sama jëkkër damaa doxaan dañoo gisante. ku la doxaan ma mayoo ko. yow yaay naa fekk mayoo ko dañoo gisante bëggante. bi ñuy indi golo ka nag yaa ñëwul. xam nga la laa bëgg a wax jaa ngi bëgg a bulu babi nii. ya ngi jàmm la laa sa bakkan bi ne ma Ya yàpp juróomi téeméer. ya ngi may ya la bakkan waroo cee xas. man nga génn fii man maa la génn fii. sa sikkim bi mel ni njàmpe prente ñaar xam nga li ma lay yëg. amoo lenn la ñaaw de. lu ñaaw rek laa la fii lu ñaaw rek laa la fi. yow jagoo ba Ya ma di ma benn benn la man añ laa bëccëg laa sotti ceeb bu wéex bu am yow doo añ yow doo añ bëccëg laa lama. ku ma xool xoolaat yow reer nga guddi dan la yàq ñëpp laa ma lambatu yow ne la ñuy lambatu sa bi ma nekk si wax sa jugal sama kër ah xoolal ah yow doo doylu dóor da ngaa fàtte barki démb fii ñam nga mu neex ma aveugle bàyyi noonu nga ah, defe ni nga defe doo doylu dóor doylu ma ay dóor koro ñamoon nga fii doylu ma ay dóor ah, dama la nga kër bu nga dalal sama kaw laa la illallaah yow génn ma ah eh, bu ma laal de bàyyi ma ma génn lentement bu ma déranger est-ce que dégg ma bu ma sa loxo laal bu la neexee sax te nu ma neex laay génn kër gi bu la neexee sax raam waaye di nga génn kër gi <laughs> eh, dugal dugal bii di ñëwaat mooy gën a dara dugal bu ma dóoraat danga may jaawale góor góor laa génnal bu ma dóoraat daanaka jàpp. yow comme que yow doo doo doyul yow lu ñu yow la ñu yónnee boo dikkee ñu dóor la ba nga